الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرد الميامين بكي نغي ديلو سي دي نيو دي گرم دي نيان يالله ييب مو ديفال نو سي اك دغ اكو آه، سي فان يي ياسو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 laqad kaana fii qasasihim ibratun li ulil albab muy xissa yi yàlla doon nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran jublu ci rek nettali ñu déglu ko waxtaane ko mu jeex waaye dafa am lu mu ci jublu te la mu ci jublu it mooy ibra te mooy waaru am lu ñu ci déggee def ko am njàng di xool béréb bi pàktal yi di ko moytu di xool béréb yi nit ñi jaaroon jàll ñu di ci jéem jaar loolu rek mooy xissa yi alquran kon noonu rek la demee bu ñu demee bay nettali siira yonent bi it dañuy bëgg démb ñu indiwaat ko xool ci tey eh, bu ko defee mën cee xoolit suba ndax eh, daanaka adduna ba mu sosoo ba léegi wenn doxin lay dox boo gisee yonente bi sax bi mu ñëwee yàlla nettali ko lu bari ci xisa yonente yi jàlloon loolu eh, mooy ni rek bu ñu indee bu tegal la rek nga xool tey war naa mën a woyof ci yow war ngaa mën a xamit yoon jaar ba jaar ci jàll kon damaa waxoon ci njëlbeenu waxtaan yële ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Madina dafa fekk ay kuréel yu bokkut kuréel yu wute wala bokk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 amit eh, ragal ni buñ ko weddee intérêt yañ daan am ci seen nit ñi top yonente man mën ko ñak kon yoy yépp mo daje ba tax ñu dik woote ak ngëm ci mom ta ngëm gu dëgg mu na taxone yoy kon am na ay taxaway yu yonente bi taxaw ci ñom alquran yi tuddu leen kon tawaif yooyu eh, moy yi alquran tuddu ci benu suratul baqara benu suratul baqara xam nga bimu ne alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقون يوم جكتد مداد الله نان لا الذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون داني موي الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون داني نيوني نك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون موي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 kuréelu ñaareel bi nga xam ne xaj na jamono boobu ñu woon ba bari waaye ginnaaw bi lañ fey euh, ñu ci ëpp ci kuréel boobu yi may wax bi feeñaat noonu euh, benn bokkuñu woon ci benn école ci école yooyu wala boog ci benn ci école yooyu lañ génne dem bitim réew jàng ji fa gis fa yeneen école yoo xamante ne moo gën a dugg sen xol ñu ñëw déclaré école boobu benn bi mën naa déclaré ne man école Muhammad Ibn Abdul Wahab ci Arabie Saoudite moom laa d'accord kenn ki mën na dikk ni man école a Cheikh Abdoul Hamid Ibn Badis ma nekk Algérie moom laa d'accord ñu leen wooye ay Ibadur ñoo ñooñu xaj na ñu sosu lañu ginnaaw bi jamonente wuñu woon ak ñoom waaye ku ne ci ñoom dafay jëflante am na jëflante bu mu nu digal ñu jëflante ko ak ñoom lépp danaa ko defal ci kanam kuréelu ñetteel bi mooy daanaka yahud yooyu yent bi fekkoon foofu ca Madina ndax ay nasaraan lañ yoo xam ne dëkkuñu sax ci réew mi waaye dañoo jógee feneen doon xool seen i intérêt yi àdduna di ko wër ci àdduna bi bi ñuy wër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 li mu digal ñu ñëw ñambaasu ci moom fii teg moom la mu leen digal mooy fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida wird wu mën a doon ci wird yi ngeen fi gis na ngeen xam ne dafay yóbbu ni ci piir bi yàlla دعني سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التيجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب كون دوخين وولي دوخين مويني نينجن في فك ñu gëm école tasawuf bii di ci yëngatu moo xam ci école Cheikh Abdou Khadir Jilaani lañ ñambaasu wala ci école Cheikh Ahmed Tijaani lañu ñambaasu ñoom ñëpp ci dëgg lañ nekk mu mel ni kon foofu taxawaay bi alquran taxawe muy amana rasulu bima unsila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ni alquran waxee ni yonente bi gëm na li ñu wàcce ci moom waaye gëm na moog jullit gëm nañu it li yàlla wàcce woon ca yonente ya ko jiitu woon kon Cheikh Ahmed Bamba doxin woowu la doxe te te te mooy suñu royteef yi nga xamante ne jamono bu ne wa maanaam ci war na ñuy seet la mu daan jàngal ñu di ko ko léegi moo tax may occasion na ci leeral kuréel yi yonente bi san san fekkoon ci Madina ak na mu doxeele ak ñoom ma di ci occasion na pour wane kuréel yi nga xamante ne moom la Cheikh Ahmed Bamba fekkoon fii ñuy feeñ ak jëflante bi mu jëflante ak kuréel bu ci ne jëflante naa ak ñoom jëflante bu yell ci nam yàlla kon kuréel boobu la mu ca leeral mooy loolu nga xam ne kon taxaw di werante mbaa xuloo mbaa xeex amul ci diggante boobu wala boog moom mu wóote wu ko waxu ko ñaareelu kuréel bi mooy ñu nga xam ne dañoo xool beneen école waaye école boobu ci école diine yi bokk ñu wax ne ñoom boobu moo leen doy féete ca waxut ni ngeen jóg xeex ak ñoom waxut ni ngeen saaga leen waxut ni ngeen mel waaye lam ci wax mooy wala tuaadu man raaytum fiihi yuxriju laa ilaha illa allah ku ngeen gis muy wax baatub laa ilaha illa allahu ci làmmiñam rek bu leen ko jàppee am na kon loolu ba tey lijjanti na fànn kooku mu féete bor nga xam ne xaj na ka a jàng la muy jàngale mbaa mu jàng ko te ñàkk koo dégg la léegi kenn ci ñaar yooyu mooy def lu wute lu ak loolu yi mu loolu yi muy wax waaye loolu ba tey loolu la mu ci jàngal bu ñu ko jàngee ba tey liñ bëgg a doxal danañ ko doxal liñ bëgg a woote danañ ko woote ba ci biir wootee bu rafet boobu sax adduna bépp mën nañ te wuy si ba liñ bëgg a taxaw taxaw te loolu mooy aw moom sax bam ñetteel bi nag mooy yahud yeeg nasaan yi ma wax ni ñooñu lam ci wax mooy ñooñu euh, léegi réel sax euh, lañ war a doxe ak ñoom ndax yàlla li mu wax ci alxuraan mooy yaa ayyuha alladina amanu qaatilu alladina yalunakum min alkuffaari wala yajidu wala yajidu fiikum xilsa ñi nga xam ne dañoo nekk ak yéen ci yéefari na ngeen xeex ak ñoom te nañ gis ci yéen ak tar suñ tubaab tartar boobu la doxee ñoom yaa ayyuha alyahudu wannasaara baarastumul muntaqimal jabbaara noonu la waxee ñoom wax na leen ba ni waylun lahum waylun lahum waylun lahum waylun lahum waylun lahum tabban lahum kon ñooñu wax sax bi nga xamante ne moom la alxuraan digle moom la digle ñu moom la doxee ak ñoom kon loolu muy ñetteel ki nga xam ne nag léegi bëgga a dund moo ko jóo ci mën naa am mu doon ñambaasu ci kuréelu islam ba mu gisee beneen kuréel di dox mu jàpp ne foofu la dund bëgg na yaatoo mu dem féeti ci foofa ñooñu la mu ci wax mooy waylun liman ilal nasaara maala li kay yanaala nekk na tan aw maala mu ne tuskare ñeel na ki jeng jëm ci yéefari te jubluwu ci dara lu weesu bëgg daraja mbaa mu bëgg alal waaw ndax yàlla dafa wax ni walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminin te julli bi bu fekkee ne am na kóolute ci alquran am kóolute ci waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana xam ne lii mu nekk nii ci la lim soxla lépp ci la nekk ba jëlal mu ko fi bàyyi di dabu ji leneen feneen léegi kuréel bi nga xam ne nag ñoom mu ñoo taxawee taxawaay yi muhaajiroon yeeg lamsaar yi ci moom nag te mooy ñi nga xam ne dañoo doon ay mbokki boppam jege ko gëm ko ak ñi nga xam ne dañoo jóge feneen ñëw xool ko ba mu doy leen ñu gëm ko ñooñu dafa am nu mu waxee ñoom ñoom waaye ma jubloo woon rek ni njàngaleem islaam ba muy door a tàmbali ak bi mu ñëwee moom di ko yeesal si ba jamonoy tey jii mel ni njàngale la yoon wi nit jaaroon pour am ci la am wenn yoon wi nit daan jaar ngir ñàkk ko it wenn wi la muy léegi ñi nga xam nag dañoo aji ci moom lan la leen digal wasaytukum yaa man taallaqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mushtabih wa kulla mushtabih yéen ñi nga xam ne da ngeen a aju ci man tey déglu samay digal li ma leen digal mooy ngeen bàyyi lépp lu araam ci sharia nga xam ne alquran da ko araamal mbaa sunna araamal ko maa ngi leen di digal ngeen bàyyi lépp loo xam ne dañ ko sip ci sharia maa ngi leen di digal lépp lu lënt ñu naan dagan na wala daganul sax na ngeen ko fa bàyyi daa cee teg ni man alima al jamia fal yu faariqa képp ku bu dem ba loolu yi nga xamante ne moom la diine di digle ak tere la cay la ñu araamal ak la cay la ñu ak la ca lënt boo demee ba xam ko xam ne mi ngi nii bu la xam mën ngaa dem beru ci bo man biha jahila fal yu raafiqa waaye ku ko ku ne nag na ànd ak ña ko ko mën leeral ñu ko leeral ba mu koy leer kon loolu mooy li nga xam ni euh, moom la digle ci fànn ñu ko topp ma jublu wax ni kon kuréel ya yonente bi fekkoon foofa mooy euh, maanaam xaaji kuréel yooyee kon dafa mel ni Sëriñ Tuubaa fekk na leen fii euh, léegi te na yonente bi jëflante woon ba lenn lu ne féete fa mu war a féete dara lalul morom ja léegi jëflante boobu la indi ba ku déglu aw jàng na muy jàngalee te jéem caa jaar léegi lalu jàmm ñu soxla ci àdduna mëna nek day am ci kaw jàng leen moom ci jëmi bop met mu leral ni yewut ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci dara ndax yi Mustafa la khair moy sama diini moy alquran ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam andi du amna fu mu wax ni aqsamtu billahi inni Nabi abadan khilun wa hibbun giñ ci yalla ni soppe bi yonente bi la ab xaritam laa wa ma yaabaahu abaahu lu mu bañ bañ naa fii mu ni nabiyuna almustafa xayrul wara xarabi fi kulli shay yonente bi day mooy sama jubluwaay ci lu mën a doon wamaa yaa baaxu abaaxu lu mu bañ rek bañ naa ko nga xam ne loolu man danaa ci dégg ni kon ka dem jàng yonente bi bu fekkee jaawaliwut nga xam ne jàng na yonente bi ba xam yonente bi lan fan la jëmoon ak fan la jubluwoon ak lan moo doon ak bëgg-bëggam rek bu buy dund ca loola léegi mi ngi ci biir Cheikh Bamba dese naa ci ni fu fu nit mën a nekk te nekk ci diine jant bi ndax tool ab tool la bu mu ñëwoon ngir di ko wattu si li nga xamante ne ay déggin la yum génnee te nit ñi xamuñu ko bu fekkee moo ko génnee bu wér nga xam ne ay nattali amuñu rek bu boobaa nit ñi li ci seenu dégg amut waaye la ci dégg agut waaye amut lu mu juyoo yonte bi sax moom jëm te jubluwutu juyoo moom ci benn ko ci biir loolu wax nañ ni kenn ci kilifa yi tasawuf yi ci Sénégal yónnee woon na ko ab ay hadiya ba mu ko yónnee hadiya ya lam ca bindaale bindaale ci ñaari bayit lam ci wax mooy hadiyatun muujibu hajtilaabu mahabbatin yaa ayyuhal xubaabu adaama rabbuna al ali xabla wisaal yaqii lana charra alladi aada wasaal mooy kooku dañu ko maa ngi lay yónnee addiye ji waaye li ma ci jublu nag mooy sàkku ak cofeel ci yéen di ñaan yàlla nag eh, buumu jokkoog bokk dox suñu diggante ba mën noo fegal bépp ayu ku dikk dinu noonu mbaa ayu képp ku jóg dinu songu si la ko tontu mooy jazaakumu xayral jazal wahaab mooy yal na la yàlla fay ngeen ji pay ci addi yi ji nga yónnee waaye cofeel gi nga wax ne moom nga jubloo moom nga wax ni moom moom nga ci jublu nag woo fii safal wi daal di laa bu leen sikka mukk ci ni am ngeen cofeel gu sell ci ma daal ne fa kay fa nan ngeen di bañ a amee ak cofeel ci man nan lay ba nan laay nan nan la cofeel googu di bañ a nekkee te fekk wal Mustafa al mujaabu imaamu na wala qibla laa nahaab ginnaaw nga xam ne ñun ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu njit rek kon cofeel gi jëkk nga koy sàkku ci man sax am nga ko moom kon doxin boobu la daan dox mu doon am njàng moo xam ne jamono bu ne war nañ koy bàyyi xel ñun waaw ba muy wax it xot ummatal Mustafa an kulli mafsadatin wal tarxamil xalqa yaa man jaddahum badaa bi muy man dane yàlla yal na nga aar mbooleem xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba bépp yàqu-yàqu ak si waaw kon léegi dafa mel ni dafa ab tool la buñ ko yabal mu ñëw di ko aar waaye sax du loolu xam ne ay différence dafa am ci diggante mbaa léegi kon euh, loolu ab muqaddima la boo xam ni danañ ci déggee ñëw gi yonent ñëw gi euh, yonent bi ñëwal Madina ak kuréelam fa fekk ak nam ko tege ci aw yoon ba leen dina taxaw fu mu war a taxaw léegi euh, waqaatu badrin biñ ci agsee biñ ci agsee mën naa ni am na yu ñu ci déggee wala boog dërs bi ma jëkk gis ni mënees na ko ci jàng ci ci xew-xewu badar boobu mooy ni nit balaa ak niteem a mat dafa am ab cër ci dundu ruux ruux ndax eh, yàlla dafa bind doomu aadama bi am ñetti matière yu bokkul yu mboole ci moom benn matière bi mooy aw yaram yaram ñu ngi ko jëlee ci suuf dafa am lu mu laaj ci wàllu dund waaye matière yaram boobu bokkut ak matière xel xel moom itam beneen matière la bu nekk ci doomu aadama bi te dafa am mu soxla ruu beneen mbir la boo xam ne moo gën a suufe ñaar yëpp wa nafaxtu fiihi min ruuxi nga xam ne ak leer la gu bàyyi ci yàlla mu wol ko ci doomu bi man nag nit ki balaa ak nitee ma mat sëkk balaa ak nitee ma mat rek dafa am ab cër ci dund googu nga xamante ne mooy dund ruux ñu bari nag bàyyi nga xel ndax dafa ne dafa ruqe yonante yi ñëwoon ngir génne ko lañ ciy jëkk mooy nit ki balaa ak nitee ma mat dund ruux boobu koo dund ndax loolu euh, mi ngi feeñ na ci ci biir xare badar boobu ndax xam nga ñetti téeméeri nit yu gën war a loo ak lu mat junni nit loolu bu fekkoon ni boo maanaam dundu matériel kese kese kese la xel daf ko nangu dootul mën a nekk ndax dañoo dañoo ñetti ci waaye gëm-gëm bañ am ca suuf ba tax ñu am fitu war a daje ñoom loolu dundu bu te ki ak dundam bala moo mën a mat bala ma mën a mat dafa ab cër ci dund dund ko ba noppi te la la ca gën a kiimaane mooy ñetti téeméer nit ñu daje ak junni nit ba noppi te teewul ngañaay li ñoom ñoom la féetal léegi gañe boobu ñu gañe euh, dafay tekki ni dafa am beneen dund bu nekk ci suuf beneen beneen quwwa beneen kàttan dafa nekk ci suufu doomu aadama bu bokk sa kàttan ñu xam te loolu mooy al quwwatu ruuxiya muy euh, kàttanu ruux loolu ci gisee ba tey ci xare xare boobu bi maanaam diine islam pas-pas fas ko ni mu toll ci doomu aadama bi ndax ndax xare bi diggante nit ak baayam daje nañ ci diggante nit ak rakkam wala magam daje nañ ci diggante ñaar ñu jege ci ak mbokk daje nañ ci xeex ci ay jees yi ba kenn ki ne mel morom ja te dara doxul seen diggante lu weesu pas-pas lañ cee xamee pas-pas li muy tekk ci nit ak ñi mu war a foore ci nit ki nga xam ne li mu fi fekkoon ak euh, buum yi daan jokkale gën ci nii li muy for for for for buum pas-pas nekk mooy li gën a for ci àdduna bu xasee dox si diggante nit ki euh, mën ngeen a ànd bokk lépp waaye bu xasee xaajale si diggante nit ki lekkate euh, lu ne mën na ko andi ci àdduna ndax nit daje na ak baayam nit daje na ak rakkam nit daje na ak magam te bu wutee pas-pas moo moo leen dajale Ibnu Isxaaqa nettali na ni yonente bi dafa wax saxaaba yi loolu yaakaar na nettiwale moo ko ci biir waxtaan wi dafa wax ne daf leen a dajale ni leen wóor ma ne am na ci bani Hashim ñoo xamante ni euh, dañ leen a ñu génn waaye amuñu itte xeex see ak ñun ma bëgg ne kenn ku ci daje ak kenn ci ñooñu nga bañ koo rey daal wax ne ku ci dajeek abul boxtul yi ibnu Hisham bu ko rey ku ci dajeek abbas ibnu abdul muttalib bu mu ndax wóor na ma ne dañ gën a forcé ñu génn waaye jubluwuñu bu waxee loolu ba noppi wax nañ ne ku ñu wax Abu Xusayfa Abu Xusayfa nag doomi Utba la Utba ibnu Rabih boobu demee ci biir mbooloo mu daal di wax ne daal wax ci biir yoo xam ne nan la ñuy rayee suñuy di rey suñuy doom ak suñuy mbokk ba noppi di bàyyi xabaas daal ni wallaahi su ma dajee moom dinaa danaa ko laabal jeesi su ma dajee moom dinaa ko laabal jeesi la wax waaye wax jooju mu wax bi mu àggee ci yonent bi sama yonent ndax dañuy fab jaasi di ko di ko dóor kanamu bàyyi tax yonente bi yonente yàlla bi nee na Omar daal di mer ni ko yonente bi kii am naa fekk la bàyyi ma ko ne ko bàyyil ma rey ko ndax dafa naa ndax lu tax muy wax loolu waaye Abu Huzayfa dañul di rëccu loola di ko rëccu ba daana wax ni baat boobee de euh, maa ngi koy tiit te yaakaar naa dara mënta far bàkkaaru baat boobee lu dul ma ma dee ci xare waaye yàlla dimbale na ko mu dee ci xareb yamaama ci ba ñuy xareek euh, murtadoon yi moom la ko yàlla dimbalee fa lañ ko rey waaye loolu rek loolu ba tey li ma ci jubloo wax rek mooy euh, pas-pas yi pas bu dëgg bu dëggu rek ah, Umar ibn Xattaab lépp lu tuuse yonente bi sallallahu alayhi wasallam dana ko tuuse waaw ku dëggu la ci wet yépp ak ku bëgg yonente bi ba tax na ku wax dara loo xam ne nuru na luy naqar yonente bi la muy sàkku ndigal mooy naa ko rek pas-pas boobu ak moom moom mii nga xamante ne moo waxoon kàddu bu jëm li wax ni moko meuna kafara a te dem ba yalla dimbalé ko loolu lepp ci pass pass bu deggu ci la bok te fek bayam ma nga bok ci yëfare njiit yefere sax ci la bok muy Utba ibn Rabi yenen tabi nak li taxone mu téré ku ray abul boxtari moomu abul boxtari yaakaar naa nettali woon nañ ko ci gannaaw ni abul boxtari bok na ci ñi waxoon ba euh accord yi ñu signé won buñu jëndante tek wa بني المطلب أك بني هاشم بنت خنت نيون نعم دوغان تغوغو بكون سنيكو نيكو دينتا تايد يون تبي مسلي جيهم كابو جن نكو فنا خير ما مسلي سوغو أنا كأبو البوكتي نعم ما تخلو بعدين موني كون نيكو باي وأناك لولو لب لولو لب نكتي أبو أبو البوكتي دين كوري بحثنا تاني رأي كموي كني أخ موجي سر ابن زياد دفع دجاج مم تي كومبار مم أبو البوكتي مو أنك بني ناتانغو مي خير خير متي نن ورا خير خير waaye lépp nag bàyyi na xel ndénkaanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom mu ci moom mu ne ko abul muxtar yi yow de yonente bi daf ma digaloon ni ku ci dajeeg yow bu mu dara mu ne ko maag maag kii ma àndal mu ne ko déedéet ki nga àndal ke suñu yoon nekkul ci mu ne ko kon ñun ñaar ñëpp booy rey booy ba pexe amul ndax ni nga xeex xeex metti ci kaw ñàkk pexe la ko rey moom mujj si moom loolu lépp ba tey dinañ ci dégg rek euh, jàpp guñ jàpp ndigal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba àgg ci ki yor jeesi jàkkaar la ñoom sax danañ bàyyi lépp ba tey dinañ ci dégg rek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 umayatu nu xalaf ca jamono jaahil dañoo doon xaritoo ca màkk bisu badar bi xare bi demee ba tàng ba nga xam ne yëfar yi ñu ngi moytu di làqatu kenn ku ne di sàkk pexe wax nañ ni abdurahman ibn awf def ko romb dafa romb umayatu nu xalaf mu taxaw moo doom ji ñuy wax aliyu aliyu ibnu umaya ñu ngi ngi taxaw moom jàpp ci loxol doom ji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 lepp kon mu ngi dem ba ragal ni deg ni ngi kon kum gis ko ko meuna japp prison xew la ko japp mu wax xaritam bu ben ko xana soxla woo ma gën ci mbubi ko ngi xana soxla mu bari abdurrahman ibn afi daal di mbubi ko ngi yam yoron dal koy japp mook doom ji dal ni samay prison waaye nak bi muy dox and ak ñom ñu gis bilal bilal seen len ñuy dox te bilal ci loxol Umayyatu ibn Xalaf la nekkoon mu daan ko sonal daana jekk ba digg bëccëg mu yóbbu ko fu tàng ci kaw dëggu tàng di mbugal mu ne nekk ko ci tàmbali islaam bokk ko weddi la bokk Bilaal séenée ni njiitul yéefar yi Umayyatu ibn Xalaf bu mucc rek du mu mucc Abdurahmaan ibn Awf ni ko ay Bilaal kii sama prisonnier la mu ne ko bu mucc rek du ma ko teg maa déglu mu ne ko bu muccee du mu mucc na nga wut a déglu ci kaw ne yéen an yaa ansaarallah yéen yéen nit la bopp kilifa yéefar yi Umayya ibn Xalaf mi ngi nii te bu muccee rek yàlla bu ma mucc ñoom ñëpp ñun ñëw ak seeni i jaasi bañ leen waree ba Abdurahman ibn Awf amatul pexe mu daat koy ba ma wax ne ko nag kon demal sa bopp te yaakaar man mën ngaa mucc ndax amatuma ci pexe ko raye loolu ba tey liñ ci jàng rek mooy ak xaritoo ak ni mu mën a foore nga xam ne ci jamono jaahiliya lañ xaritoo waaye nag lee ko gën a fort pas-pas bi daf ko gën a foor ba bi mu ñëwee ñi nga xamante ne ñoo ñëw di ko raase day mujj ñoom sax la gën a àndal léegi ci li ci ca nga xamante ne moom la xaritol kon dëggu pas-pas ba tey luñ ci war a jàngale ñam la mooy ni léegi nit am pas-pas ba mu gën ko lu ne Omar ibn ci xare boobu yi moo rey nijaayam dañuy wax Aas ibnu Hisham ba tey moo ko rey kon loolu ñu ciy jàngi pas-pas bu dugg lan lay tekk ci nit wax nañ ne biñ demee ba yëfar yi nag ñu gañe leen bañ nangu ngañaay li nga xam ne ñu ngi jàpp di di di gurgur di andi ci yonent bi sama di andi di andi di teg di yeew booba Saad ibn Muaz mu ngi taxaw ci bunt bi di garde di garde bunt bi buntu néeg bi nekkoon yonent bi xool gis kanam gi mu mel ne dafa soppi mu ngi daa mel li ñuy def def laa neexul mu laaj ko loolu mu ni ko wallahi ya rasulallah man li ma bëggoon mooy lii mooy xare bi njëkk xare suñu diggante ak yéefar yi jàpp gi ñu leen jàpp ay virgin dafa ma neex li ma mooy ñu rey leen kenn bañ fa des lii mooy première guerre leen moo gën nit ñi jàpp ni ko naqari gi ma naqari loolu laa gis ma tax Okasha euh, ibnu Mohsin wax nañ ni jaaseem dem na ba ba ba dam ci bis boobu ba bu ñëwee jàmbat ko yent bi yent bi jox ko jël ab jox ko ne ko demal nga xeex ci li waaye ba mu demee ba mu yëkkatee mu doon jaasi jaasi jooju continué na na di ci xeex ba ci xareb murtadoon yi xareb ñi murtadoon ci lañ ko mujj rayee te boobu jaasi jooju mi ngi ànd ak loolu ba tey ci yi feeñ ci waqaatu badrin ci la bokk gannaaw bu xare bi demee ba jeex Mus'ab ibnu Umayr dafa romb mbokkam ma ñuy wax Abi Aziz ibnu Umayr fekk kenn ci lansaar yi jàpp ko di ko yeew te ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey bay xam nga lu mu wax lansaar yi dañu ko takkal bu dëgër wax yaay borom alal dana ko jot mom ni ko wax ni nga ni bi mom ngay dénkaane ci man mu ne ko do sama mbokk ki di la yaw moy sama mbokk ñu xamé sen fa pas-pas tollu won ñoom fa sen pas-pas tollu wax nañ biñu biñ ba xare ba xare bi jeex ba ñuy jël yéefar yi ba yonte bi digle nañ jël yéefar yóbbu ci bir bënn gi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 xobbaab ibnu Munzir laaj ko ni ko ndax béréb bi day béréb bu la yàlla wàccee nga xam ne mën na ko eh, avancé mën na su ko arrière mu ko déedéet ab xalaat rek ak mbirum xare ak i pexe mu ne ko kon fii baaxul nañ avancé yonent bi dafa daal di jóg ànd ci xalaatam boobu ñu dem def kon eh, ñett yooyu yëpp danañ ci dégg danañ ci jànge ni kilifa gu mën a doon yell na ci moom muy diisoo ak nit ak di déglu seeni xalaat di ko jëfandikoo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 waxi saad ibn muas jëm wax ne yow yonante bi dañ la bëgg tabaxal defaral fi ab nekk nga nekk fi ñu waajalal la sawar waay ba mu jekk ba noppi nga bàyyi ñu ñu dem xeexe ak noon bu yàlla dogalee nu gañe mooy liñ bëggoon bu yàlla dogalee safaan ba nga mën a war ci sawar waay wi daal dem ma ndax ndax ay nit nga fa joo xam ni ëpp ñu ëpp ñu ëpp ñu leen ak cofeel ci yow buñ xamoon ne da nga xeex danañ ñëw kon ko foofu bëgg gum bëgg yonante ak yéene gum yéene mu mucc ba mu gënal ko jëm boppam feeñ na fa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 te mooy ruuxul maanawiya mooy nga am it bokku na ci bokku na ci sabab yi tax nga ñay li am ci bis bokku la koy mën may nit nak moy li mu jog di ci yëngutu mu mu gëm ko mu xam ni mu toll mu gëm ko mu gëmee ko ni mu ko wara gëm lolu bo wa mo lay may ittee bam jaral la sabakan bakkan momu da doon lu mënta ñak ci nit bari na lu mënta taxaw te ñak ittee tax mënta taxaw bari na lu taxaw it lo xamni ne ko taxaw waaw ñetti téeméer nit bu ñu taxawalee dara ci kanamu junni nit rek naa ngam itte moo leen ko may hmm, pas-pas bu dëggu ci ci xol ni ndax ñoom gëm nañ lii nga xamante ne moom lañu lañ leen woo ba mu dëggu ci seen xol kii nga xamante ne mooy seen kilifa yi ñu ci moom kóolute gu wóor ak doylo ñaar yooyu nag saa àndee rek nit ki itte mën naa kawe ba lu mu bëgg taxaw taxawal mën na ko taxaw yàlla am na ay ay alxuraan yu wàcce ginnaaw bu xare badal jàlle لكي يكتي إتنين وهنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار بمين دجاج نوم بلين لن وان جنا مك ومن يوليهم يوم إذن دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما يهجان وبيس المسير نخم نكون دوتي أبخاري دفبوكو جبا كاريما آه نخ تكو كي سوارني أكمر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 bulen doya doyadi bulen jak, jàq wa antumul aalawna in kuntum muminin dan yene kay waaye nak lay satru ngeen ngeen gagne nak moy moy ngeen gëm kon ngëm gogu moy lepp kon julit ab xolam dafa wara deugar dëgër bi jangal na ni xol julit da wara a dëgër mel doj manam amul genn kat gu ragal ci kaw suuf ma genn doore ndax ginnaw li fek mi ngi jafandu ci yalla rek te yalla ëpp doole lepp rek léegi julit wotati dara julit wër sa daw ngir ragal ab dundam wër ta daw ngir ngir ngir ngir am xeemanteef ngir xeemanteef ndax la muy ragal ak la muy xeemam lépp ci loxo yàlla daje te xas na ni gëm na yàlla xam kon gëm bu dëggoo rek julli wër sa daw lor wër sa xëccu ji njëriñ feneen ba tax muy bàyyi ndigalu yàlla alquran li wax mooy fa isa jaa ajaluhum laa yastaaxiruuna saatan wala yastaqdimuun ab dig bu ñëwee maanaam benn saa ko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 buñ ñëwee jëratul ñu jël ay ngane jëru ñu jël ay matrailles jëru ñu jël ay faral jëru ñu jël dara nañ fa alal rek def seen poche alal moy nganaay li nga xam luñ la bëgg ni la bu ko def alal lañuy indi mu taxaw taxaw nganaay bobu luñ la bëgg digal ni la defal lii alal lañuy indi mu taxaw taxaw nganaay bobu kon légui dem nañ ba ñun ñi ngi dund société bo xam jëratul kenn di jël nganaay di jël di xaar seen ñun luddul alal na andi alal rek lu mu bëgg saxal dana ko saxal lu mu bëgg dakk dana ko dakk comme la ويكت بوحنا إن الدراهم في الأماكن كلها تكسر الرجال محابة وجلالة من خالص مهم برب يب مو في عند النت رسبة أكو أكو فانك فهي اللسان لمن أراد فصاحة من كبق فصاحة وش الخالص بين فصاحة وهي السلاح لمن أراد الختالة من مو ينقى نايت كبق خا ومن خا يبو من اللي في دون دون دون باصة بكون أي وقت شيء بروم خرب بدر بابو يلا وحتي القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون موي بو نين داجي كيفري صح موي نين دغر تي تود يالا بار نا نين تخ واتي الله ورسوله ديغا ني توب يالا اكو يالنتم ولا تنازعوا فتفشلوا بولين خاتيو ناخ بوين خاتيو رك دا نين اشك وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين اي تكس لي ام سولني موي فاسبوتو موي نين دغر صح نك لأن ولا تكونوا كالذين, تف... كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعمر المحيط بلان ما لنجا خانا بني جن سكره وانجستر مولن تخا جن ين نجن جن تيالا كيب تخ كون يالا لي تخ جلد بيغاني تود نتي يباري في تبير آيبو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 te buñ génn léegi ñu fa toogee sax di waxtaan jëw jëw baag fen yaag mbaa jaag jaxase lépp jaxasoo ci loolu moom jërul kenn mu jóg di xeex naan na fi jógew waaye alquran ji leen tax di xeex mooy jëy def pas-pas ci nit ki te mooy jë nit ki di jàng di ko settantal di xool lam koy digal di xool mu koy tere waaw jooju mooy li nga xam ne mën naa andi ci nit ki kattan ko ba fii nu toll nii noo nee ñetti téeméer nit noté woon junni nit ba fii nu toll noteel ko mi ngi ci biir alquran bi waaw ndax njëlbeenu ngañaay ginnaaw bi yàlla dafa wàccee na ay alfaan ci jamono yooyu ni leen in yakum minkum ashruna sabiruna yaxlibu mi'atin wa in yakum minkum mi'atun yaxlibu alfan ni leen ñaar fukk ñu muñ mën nañoo not ñaar téeméer ci ay yëfar téeméer bu muñ mën nañoo not junne ba mu demee ba woyofal ko ba woyofal ko léegi ne al ana xafafa allahu ankum wa alima anna fiikum dofan léegi yàlla woyofalal na ko ndax xam na ne amu leen kàttan waaye nag fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaxlibu mi'atin léegi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 kon xeex bi nga xam ne nag moom lañ jóg ngir xeex ko alxuraan moom yi penku ak sow ñoo ci yem ci njëlbeenu euh, colonialiste yi anglais yi ci réew yi yi penku yi dafa am kilifa ci kilifa yi colonialiste yi ku taxaw di waaraat wax di wax di wax ba wax ji tàng mu mu génnee ci doon poqtaanam ab kaamil yëkkati ko ni leen kii mi ngi tax mi ngi nekk ci biir jullit yi rek li léegi am ci ñoom ku ku mer ku ku benn yéefar bu jóg daal di nangoo kaamil bi ci loxoom xottite ko mooy bu dee waxuma xotti gu mel nii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 mënta nekk rek la no jamono bu ne ñu seen ko muy def lam doon def ñu ñëw jël ko pam pamtee ko ba àtte ko yóbbu ko juróom-ñetti at yu manqué tuuti bañ ko indiwaatee dara soppikoo ci lam doon def ndax mënuñoo yëngal ci ma aw fekk kon ñun won nañu ñi jullit war a dëgëre ci li nekk ba saxal ba saxal li mu bëgg a saxal waaye kon fas butoo ji alxuraan wax mooy sax gu demee noonu mooy dëgër kan tey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 di ko pontonte dama mom juroom ñaari at luñ xam lu ñu def ko mëna luñ ko dara ñu delloo ndax dañoo jàpp ñooñu dañuy wéy seen gànnaay tok wala dañu japp ni mbagnel gogé dafa soppi ko ak mbagnel soppi ko ak mbagnel dañoo dañoo dem nak ba am nañ seeni taalibe yu ñu formé bañu leen ko defal taalibe yi ñu formé ñu leen ko defal di sol suñu tal di wax suñu wax di bok ak ñun di lekk ak naan loolu ku formé ko mel non man ngaa dem tok li képp la fi toll nii dañoo formé ko mel non dal di dem tok bu ko defee loola ba fi mu toll ni mooy dox ba bëgg nag loolu julli bi nag war a ca bàyyi xel ndax ne da da amuñ dara dara dara lu féete kaw diini islam te la ko taxawaloon ba fi mu toll moo koy taxawal mooy as sabaatu wa sabr fasbutu waskurullaha kasiran la'allakum